jaajëfal alxaaji sëñ mbàkki si lém mu nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ci rang ak poche def dara tabaarakallaahu démb bi ñu yëkkati jataay bi moo ngi tolloon ci euh, jataay bi di séminaire bi ak réunion bi ko jiitu toll ci nag euh, tànn toll ci tànn yi ñuy bëgg a def ki ko mën a ñi ko mën a def bu ñu noppee ci tànn ñañ tànn ñu defal leen ni formation ak stage loolu ci lañu bëgg jublu incha allah fàttali na Serigne Mbàkke ngi ci jataay bi <laughs> eh, tànn penc moo dem bu ñu tëralul principe bu tànn ci li ñuy deflu daañ defloo nit lu munta def nit dana volontaire bëgg def lu munta def rawatina bu fekkee def deflu yi dañ ca gàllum koom mbaa xaalis ak daraja buñ ca gàlleem koom mbaa xaalis ak daraja léeg-léeg nit jéem lu mënut te Haj Malik Maodo Faye nee na kuy def lu mënut ñey seetaane njëkk a sonn mbokk yi soppi pénc mi soppi pénc mi du lu yomb te yàlla nee na bu ngeen ko soppiwut duma soppi li ngeen nekke inna allah la yugayiru ma bi xawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim soppi pénc mi ndax al insaniyatu jëriñoo ko nité humanité dul lu yomb ndax jële fi ceddo moo yombut ndax ceddo cim pinc moo dul seet yàlla nee na wala yonent ba nee na day def rekk te def li def def yi muy def nag mooy mu jàgg mu dugal penc mi ci giraawaali ba te ca duggee moom ba noppi moo tax coppat googook soppi pénc mi ñoo ñu tuddee zawul ahliya mooy dafa am ñu ko man waaye man giñ ko man it luy caag na dañuy xëy rek def ko dañ leen di waajal waajaay woo xam ne dina mën a tax ñu mën koo def waaye ñu tànn leen ci démocratie ñoom ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a sant soppi penc mi aw góor aku jigéen te bañ a benn am benn couleur politique couleur parti walla couleuru penc wala couleuru euh, association association ñëpp rek xam ne soppat gi ñun la war waaye mbokk yi tànn tànn boo demee ci démb sallallahu alayhi wa annabiyul Mustafa Euh, yàlla def ko yónni muy jàngal waa adduna moo tax tànn du lu bees du lu ñu sosit du bidaa tànn bépp muhimma bu ñu bëgg a def dañuy tànn ne diw yaa ko mën a def ndax compétence yeeg euh, yu ni demee expérience yeeg yooyu yombut déedéet yombut loolu ne dafa am loo xam ne buñ ca tànnee ko ko man mu man ko suñu penc mi boo demee ci wàllu sport dafay am ku ñu tànn mu man ko nga dem ci wàllu politique noonu communication noonu jàngale noonu tabarkàll ilaaxiri ilaaxiri boo fi doon toggulub ceeb togguloo ko nogi sàllaaw sa ndugg mi yépp dana yàqu ci doo lekk ceeb bu neex waaw <laughs> maa la ko wax mu tax kon dañuy tànn tànn googu nag sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon nanu ko ci benn hadis ci bam fi nekk bàyyee nu hadis bi nag dem nu war di ko jariñoo ba nu koy fekki yàlla na yeex waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam ngoog tànn googu daf nañu waaw daf ñu ne woon mathalu ma ba'athani allah bihi min alhuda wal ilmi ka mathali alqays alkathir asaaba ardan fa kaana minha nee na daf ñuy jàngal ñaar yi ko yàlla jox ngir mu yët nu ko alhuda wal ilm nee ñaar yooyu ko yàlla jox ngir mu yët nu ko lanu bëgg léebal léeb boo xam ne bu ko léebalee soxna Aana Njaay dana xam ne léebu yonent bi bokkut ak nun suñuy léeb ndax nun léebatunu dañuy maye nun léebatunu dañuy maye moom nag da doon lépp alxuraan di lépp waa penc mi di lépp nun nag léegi dañuy maye lan la ñu yónni bi léebal ne li ko yàlla yoon yónni ti ci njub ak xam-xam bu ko dee seet ci nun ñin ko yónni woon ñetti groupe lañ alhuda wal ilmu nee na bi mu ñëwee ci penc mi ñetti groupe la fi fekk ñu mu ne ni ab taw di fekkee ñetti barab mu misaal xeet wi ci euh, ab taw nee taw bu ñëwee asaaba ardan day taw ci suuf si suuf si nekk ñetti ñetti ñetti barab benn barab boo xam ne naqiya barab boo xam ne naqiya mooy ruuj nañ ko ba noppi dindi nañ ñax ma rijji nañ ko taw ba fekk ko fa taw ci koom nee na ba taw ba tawee ci koom e, ndox ma daa di saxal gàncax saxal gàncax saxal fuñ mën a sàmm saxalum ñax mu bari nee na benn barab goog mbokk yi bank leen seen baram te note ko yonent bi moo jàngale ci façon léeb nee na xeetam wi xeetam wi ni ñu dégg koo xam-xam bi mu indi ak njub gi nee na ni taw bi def la def dafa taw am suuf soo xam ne naqiya tayyiba waaw bi taw bi ñëwee tooyal suuf sa saxal fu ñu mën a sàmme saxalum ñax mu baree baree bari loolay benn bi mu ne am barab boo xam ne ajaadib ajaadib mooy dafa bekkoor wala dafa wow dafa wow moom nekkul ak joor comme bi ma njëkk a wax mais xur la mu tiye ndox mi fa nafa allahu biha naas nit ñi jariñu ca ndox ma ndax ma nga taa nekk ab déeg ñu naan ca wëgg ca sàmm ca seenu jur muy muy deuxième deuxième euh, terrain bi troisième bi alayhi salaam mooy jàngale nee na troisième bi te mooy ñetteelu barab bi euh, xii aan la xii aan mooy dett ndeer dett ndeer ci wolof mooy ab jànj munta téyam ndox munta saxal gàncax mu ne bu ngeen déggee ñetti barab yooyu sama mission bi neex leen firil waaw neex leen a firil waaw mu ne loolu mooy ñetti barab yooyu benn bi mooy ki dégg diineem ki dégg diineem yàlla jariñ ko ci dégginu diineem woowu mu jariñ ci ay nit jàng jàngale mu ne waaye am na koo xam ne bi yàlla ko bi ko yàlla yónni yonent bi neen musuma xëyal musuma xëyal nee na ñaar ñee ku ci nekk jéem nga koo xëyal waaye ne yonent bi nee na am na ci biir nit ñi ñoo xam ne mosuñoo xëyal yonent bi ah yàlla nu ci yàlla musal waay <laughs> wa mathalu man lam yarfa bi dalika rasa wa lam yaqbal bi ci waaw yonent bi nee na moom xam na ci xeetami ñoo xam ne mosuñu koo xëyal musuñu hmm? koo xëyal allahu akbar nee na it àdduna si noonu la kon mi ngi ñuy jàngal principe bu tànn su fekkee ne am na koo xam ne dégg na diineem mën na koo jàngale mën na koo tasaare nee na mooy xuur woowu nga xam ne téye na ndox mi ku ñëw naan mu ne waaye bu fekkee am na foo xam ne ab janj la detti ndeer ndox gu ca toq dem ne na am na ci xeetam bi muy ñoo xam ne musuñu koo xëyal moo tax ña xamoon te dégg addis bi bu ñu masaan xëy mënuñu koo xëyal ñu gis ku koy xëyal ñu ànd ak moom loolu moo jur sunu mag ñi am ay taalibe ñuy xëy di leen xëyal ndax ña ngay xëyal yàlla te ñoom bëgguñoo xëy ñu ngay xëyal yonente ba te bëgguñoo xëy ñoom it te xëyaluñ ko wax naa ko keroog ndeysaan ca sarax sa waaw ci yéer yi suñu mag ju faatoon ñu ko faatu géey yàlla na ko yàlla yërëm ma ne leen léeg-léeg dañuy daje ci sarax am ñu jël téere bi di jàngal ki faatu alxuraan mu di jaamu yàlla goo xam ne buñ ca noppee ñoom ñoo doon jàng kaamil ba ñu délégué kenn ne ko waxal ci sunu kàddu neel sunu borom nun ni daje doon def jaamu yàlla gi ñu tuddee ak jaamu yàlla gi ñu tuddee jàng alxuraan bin ci noppee tuyaaba jaag leer lépp danoo bëgg nga joxal na ko sunu mbokk mii nga xam ne moo génn àdduna di yaayi Maodo yàlla noo lay ñaan nga àggale yool ba ca moom waaw nijaay alxaaji Lamin Saar ci aslem bu koy jàng tabarkal la ñépp xëm ca jataay ba waaw ndeysaan seet tët tët waaye bu bu sarax si amee ba ñëpp toog di jàngal xonam day am ñoo xam ne ñoom du ñu jàng ma ne leen nag su ngeen bëggee bokk xëy nit ñuy xëyee da ngeen di féete ci beneen boor beneen boor bi mooy làmb leen seen poos génn ci ab sarax saraxeel ko kii dem ñee sarax ko alxuraan ngeen sarax ko li ci seeni poos bu ko defee ñépp participer ci sarax bi loolu lay wax kon ci sunu boroom subhanahu wa bi mu yónnee yonent bi am ñu koy xëyal am ñu tëddi nelaw alayhi salaatu salaam nee na ñi tëddi nelaw nañ am xel ci jóg ñoom it def seen loxo ci liggéey bi su boobaa kon mbokk yi ci principe bu tànn bu ñuy tànn dañuy tànn ña yonent ba alayhi wax ne mën nañoo àggale daawaan bi fa nga xam ne bëgg nañ mu àgg fa waaw ñépp mënuñu ko waaye am na ñu ko man ña ko man te yàlla jox leen jintukaay ba nu mën a waaj la professeur Iba Der waxoon jàngalekat ba li ngay jàngale nii nan laay def réew bi yépp dégg ko looloo war a war ñépp looloo war a war ñépp mu tax kenn ku nekk ca penc mam nekk bu nit ñi xamee ne ma nga ca lam nekk jege ko moom it ànd caag moom ca liggéey ba lu am am solo la Cheikh Islam Haaj Ibrahima Ñas rahmatullahi alayhi wa ci wax bayit wu waa penc mi dégg ko léeg-léeg <laughs> bu ñu duggul ci mel noonu du ñu ko dégg fa kullu man xadama nii laqaa nii fii janatil xulli bila buhtaani waaw ci sunu waxi mag ñoo ñu léeg-léeg nga dégg ci wax joo ne ji boo demul ci ginnaaw ba mu xóot rek doo xam lu muy tekki mooy lan maanaam ku ñu fexe ba ngay xëyal yonent bi yëgal na sa aajo fa jonu fii ak fële loolu loolu lay tekki waaw ci sunu dégg nag bokk noonu xam naa eh, al arabi mi ngi may dégg <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér waaw arabi ñes xam naa mi ngi may dégg yàlla na ko yàlla yokk wér te ñu ko raw bëriwul waaw <laughs> kon fexe ba ngay xëyal yonent bi ki la ko defal teg na la ci yoon woo xam ne da jariñu fii da nga jariñu fële kon principe bu tànn mooy ba ñëw ci penc mi ñaar a fi nekkoon koo xam ne kii day xëy dina la rek ak koo xam ne kii day xëyal yonent bi yonent bi nee na jàppale leen ci ki may xëyal yéen ñi xëyagoon ngeen fas yéenee xëy te fexe ba ki xëyagul xëy su ko defee penc mi jag waaye su fekkee ñiy nelaw ñoo ëpp ñuy xëy dara du dox waaw sallallahu alayhi wa sallam boobu am na solo lool oustaz Cheikh Tànja kon am na koo xam ne kii mën naa jóg la yonent ba daan def di gaaral diine ji aw nit léeg-léeg nit nangu léeg-léeg nit dégg ko yonent bi daana ko def la arab ne ca pénc ma naan leen yàlla ma yónni di ko defee ci façon boo xam ne bii façon bu baax la teewul am na ñu daan taxaw ne yónni ko de yónni ko de kon tànn mbokk yi sémi euh, séminariste yi nga xam ne gaaral nañ seen ñeen seen ñetti euh, seen ñetti atelier yi ba noppi kon li ci des mooy dañoo war a jublu ci tànn nuy introduire nag li tax tànn am waaw tànn sallallahu alayhi wa sallam kera ba ñuy xeexi badar kera ba ñuy bëgg xeexi badar am na lum fa def lu ñuy tuddee al ixtiyaar ixtiyaar mooy tànn ndax li kulli muhimmatin saaba ixtiyaar lépp loo xam ne daa jafee def ci pénc mi dañuy tànn ku ko mën a def waaw tabarkalla moo tax nga dégg naan diw tànneef la mu ñëw ci tànn gam tànnoon Seydina Aliyun karramallahu wajhahu danoo julli timis ba noppi jàkk ji del ñu xam ne bu subaa la ñuy xare xaybar alayhi salaatu salaam wax waxam jure la utayanna hadihi raaya rajulan yaftahu llahu ala yadayhi yuhibbu llah wa rasula wa yuhibbuhu hmm? waaw mu ne bu bu ñu jullee suba ba noppi danaa jox drapeau bi bi jenn waay jenn waay joo xam ne yàlla dana ubbi xaybar ci ay loxoom waa jooju may jox drapeau bi bu subaa ku bëgg yàlla la waaw ku bëgg yonent bi la waa jooju nga xam ne bu subaa danaa ko jox drapeau bi ku yàlla bëgg la ku yonent bi bëgg la <laughs> Seydina Omar ca dëggu ga mu ne guddi googu laa sa campagne ndax bëgg bu subaa ñu jox ma lii mun na ndax yi ci yonent bi wax Abubakar nee na Omar nee na guddi googu nelawuma ay waay bu ma xëyee yonent bi jox ma ko mbaa du ma xëm mbokk yi dégg leen li yonent bi wax danaa jox bu subaa bu ñu jullee suba ba noppi danaa jox drapeau bi jenn waay ci yéen cent vingt quatre mille sahaba waa ji ma koy jox ëllëg ci loxoom la yàlla ubbi xaybar waa ji ma ko jox mu ëllëgee ku bëgg yàlla la waa jooju ku bëgg yonent bi la waa ku yàlla bëgg la waaye waa jooju ku yonent bi bëgg la Omar ne ay waay bu ma ko joxee bu subaa nee na guddi googu nelawuma ah loolu kay la <laughs> bu subaa laay def dafa am benn bis bàyyi alaaj njaga njaay la ca jare tubaa njaay rahmatullahi alayhi radi anhu sunu góor googa sunu góor googa seet nga xam ne boo toog ak moom yaa ngi jàng rek tabarkal la bàyyi njaga daat ne bàyyi bàyyi Cheikh Guèye kenn ku ne ca kër ga ne ko bu suba dama la bëgg yónni njare Touba Njaay <laughs> bàyyi Cheikh julli suba rek dem <laughs> dem ba tubaa Njaay njare Touba Njaay lu doon say tànk mu ne sëñ bi moo ne woon bu soo dana ma yónni lu mu la yónni muy jotuma ko wax ñëpp këpp <laughs> kenn mosu koo gis rek Baye El Hadj Ndiaga moo doon yónni Baye Cheikh ne ko bu subaa dinaa la yónni njare tubaa njaay waaw Baye Cheikh julli suba rek dem xanaa kay <laughs> man ngaa xaar bañ ne la lii lañ yónni mukk moom daa xëy rek dem Baye Cheikh Ndiaye yal na ko yàlla yokk wér mu nga ca njare Touba Ndiaye ndeysaan waaw te man alxuraan lool mook bàyyi jibi ndeysaan ñoo fa nekkoon bu bàyyi njaga amee gan ne bàyyi cheikh mu naa mënoo ko bindal ma laaye sàngam nangam yoon bàyyi seex du ko gestu du yoru këyit waaw bàyyi cheikh gi ma nga fa ba léegi ndeysaan waaw xaw naa màggat nag bàyyi jibi tam noonu la meloon bàyyi jibi géey dëkkoon ca bël géey ay àndandooy si sëriñ alaaji njaga njaay lay woon ak sëfóoram ba moor faal di sànn seet te te te waaye daal yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu subaa danaa jox drapeau bi jenn waay waa jooju ci loxoom la yàlla yu ubbi xaybar ci la ñu amee victoire waa jooju ku bëgg yàlla la waa jooju ku bëgg lay doon waa jooju yàlla bëgg lay doon ku yonent bi bëgg lay doon fa lamma asbaha annaasu gadaw ala rasulillah bi nit ñuy xëyee rek wër jàkk ji jàkka ju fees del ku nekk yaa ngay wax say baat ay bu ma ko joxoon ay bu ma ko joxoon wa kulluhum yarju an yu'taaha ku ci nekk ne na ma ko al na ma ko jox yàlla ma ko jox fa qaala ayna aliyun ibnu abi talib ndeysaan ana ali ñu joxe ko ñu jox ñu jox ñu joxale ko joxe ko ngànt maanaam ñu ne yonent bi Aliyu dafa wànnent waaw ana Ali ñu ne dafa wànnent ah xanaa kon bu doon ñun dañ naan nañ seet keneen ñun bu doon ñun dañ naan nañ seet keneen ana Ali yi daa am ngànt acca dem leen ngeen wooyu ko ñu ne ah, dafa am ngànt de dafa wànnent waaye dem leen ngeen wooyu ko rek ñu dem wooyi ko ommat ko ndax wànnent wi mayu ko mu mën a dox fa utiye bii bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ko fii aynayhi wa daa lahu fa bari a bi mu ñëwee yonent bi moccal ko wànnent wa fi ñu toog tafli ko ca diggante ñaari bët yi Seydina Ali ne jar mel ni ku musta wànnent keroog la gëj a wànnent ba mu sàngoo suuf yonent bi jox ko drapeau ba ñëpp waaru mbokk yi principe bu tànn kon lu am la te ci laa bëgg a dugg ak ndaw ñi waaw ci laa bëgg a dugg ak ndaw ñi réunion nañu euh, séminaire nañu dégg nañ la atelier wax ma bëgg tànn ay ndaw ci mbooloo mi ñu ngi ci saal bi ba léegi centre bi tudd ab Abdou Diouf eh, nekk ci jam ñaajo bu leen toxal seen ak déglu tabaarakallaahu ñoo ngi jégalu soxna yi nag di jégalu sëriñ di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bés 2 nu ànd suñu jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10h jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla yàlla def jàmm ci réew mi réew yi ko wër. suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yoon seen i kayit bëgg la nag firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak rek dem leen ci moom jënd fa loo xam ne lu baax la te du xumaag waaw ak ca pën yooyu it nag yàlla yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara ngeen àndoon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu.